alors euh, ñu ngi ci l'invité d'OPEF Pierre-Édouard Faye Edouard comme on aime ay <laughs> Aïcha et moi. waaw maa ngi nuyu bu baax di la ziar di nuyu euh, ñëpp ñuy suivre jamono ji. Mm. Euh, programme mu euh, réveil ci Walf TV ak Walf FM. waaw di am jàkkaarloog yow mais comme ni ñu koy defee rek chaque matin di am invité bu am solo aujourd'hui nga fi dalal ki de di Babacar Mbaye Ngaraaf coordonnateur de Taxaw Temb Aar Suñu Gox ñu ngi lay ziar bu baax a baax monsieur Mbaye. ngi lay fay lu bëree bëri Adja Salma di nuyu mon jeune frère. Préva Faye une mm-hmm. connaissance de longue date mm-hmm. mais ma jàpp ci moom ay jikko yu am solo nag quoi mooy mm-hmm. disponibilité ak affaire également analyse yu pertinente yi muy def di profiter ci occasion bi rek di nuyu ñi ngeen liggéey bi yëpp di fàttaliku aussi suñu mag wala suñu sa waajur bu baax ba. Mhm. Alaaji Sidi Lamine fii mu tëdd yàlla ko gënal. Mhm. fii mu bàyyi. amiin yaa di nuyu waa Guédiawaye gépp. amiin di rectifier un peu rek quoi je suis pas le coordonnateur Taxawu Thème mhm. loolu si man la man maa bind coordonnateur. d'accord léegi nga nekk tamit parce que da nga bëri ay casquettes euh, nga raaf. <laughs> incha allah nga nekk président synergie des acteurs de l'assainissement de la banlieue. di euh, Saba euh, donc porte-parole taxaw Thème aar sunu gox conseil municipal nga aussi chargé du domaine urbanisme et habitat ca ville bu Guédiawaye euh, donc ngay yëngu lu bëri ci wàllum environnement euh, suba sax nekk euh, journée mondiale de l'environnement di 5 5 juin mais ñu waxtaanee saaba d'abord sa casquette boobu ndaxte dañu gis nawet bu jotee souvent da nga doon jóg taxaw pour xeex inondation yi mbënn bi ren nawet bi dooragul mais door na sax si ay gox yu bëri mais egseegul fii si Ndakaaru nga xam ni fii la fii la inondation yi ëppee est jamono ji si terrain yi nga def ak information yi nga am am nga yaakaar ni ren inondation yi dina wàññeeku du mel ni at yu weesu. waaw amoon nañu ci trop nag quoi nga may ma dawal rek ma nuyu ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ñu ñoom ci saaba di nuyu suñu rakk yi nga xam ne wala suñu ay jarbaat mm-hmm. yoo xam ne sax pratiquement ñoom ñoo jël relais ndax it àdduna noonu la dafa am loo xam bi nga koy def am 25 ans bokkul ak li nga amee 45 ans bokkul ak li nga amee presque 50 ans wala sax lu ko ëpp donc am na tey suñu ay rak suñu ay jarabaat ku ci mel ni Samat ku ci mel ni Naar ku ci mel ni ñoom Cheikh Mbacke yoo xam ne ñu ngi liggéey liggéeyu am solo ci wàllu inondation bi c'est l'occasion ñu remercier leen rendre leen également hommage. boo inondation yi c'est vrai que jusqu'à un passé récent amoon nañu ci tiitaange lool ci année 2024 bi mais il faut dire honnêtement que aussi barki démb opération jal nawet bi la chef de l'État lancé dekkil na yaakaar un tout petit peu pourvu que nag cette opération a yem rek. ci benn euh, mégalomanie maanaam def ko tey rek mu nekk une gestion événementielle des inondations def nañ ko tey après parewaat dellu ci kër yi parce que am inondation xeex gi doo xaar ba nawet jot nga koy def il y a ce qu'on appelle des opérations pré hivernales lu ci mel ni écrêtage des bassins curage des caniveaux ak également xàllu yoon bi nga xam ni mooy yoonu ndox ndox dafa am yoonu boppam nga xam ne la ñuy wax yoon naturel bu ndox mais souvent ay liggéey wala ay ay ay ay obstacle dañuy tax ba suñ ko defarul waajal nawet bi rek li muy jur mais bu taw bi ñëwee ndox mi dana amatu fu mu jaar. est-ce que def nañ ko at ni am na soo ko waxee ñu weddi ko mais xamaan ñu a constater de moom bu dee am na it bëriwul ndax ñun bari ni Kër Massar ay Tivaouane Diacksao ay Diamaguène Sicap Mbao et dans une moindre mesure une partie de Guédiawaye mais opération pré ko woon wax dëgg yàlla zone yi ñuy wax am na as néew sax même ñu koy def d'accord nañ ñi dañ koy yéex a def bon mais jàpp naa ne bu chef de l'État jógee taxaw daal di dans le cadre des opérations de set setal yi ñuy def par weer cette fois-ci mobiliser tout son gouvernement mobiliser ci gox yi aussi euh, kilifa yi ba tax mu lancer ce qu'on appelle opération waajal nawet jàpp nañ ñi nag les gens vont percevoir le message aussi def ko de manière continue ba nga xam ne daal inondation yi dootul amati. suñu yooyu lutte du lu ñuy décréter ah. absolument xam nga liggéey la booy def sur le terrain. absolument xam nga Pierre su ma la waxee dëgg rek suñu wax ci inondation sax dañu am kersa pour la bonne et simple raison que 2005 lañ commencé wax ci inondation au Sénégal en tout cas ampleur bi mu am bokk. nga fàttaliku 2005 ba tey 2019 2024 muy 19 ans après on continue de parler d'inondation dans ce pays cela gêne quelque part. ak milliards yi ñu ci dugal au regard surtout pour ne pas dire faramineuses. yi wax ni def nañ ko toll inondation yaa ngi fàttaliku plan Jaxaay. 52 milliards ak lu ko ëpp sax ji dem par la suite. plan décennal de lutte contre les inondations 767 milliards. amul benn sénégalais bu ma wax avec sincérité que xaaroon na ni 10 ans après. plan décennal ak 9 yi ko jiitu woon muy 19 ans après on continuera de parler d'inondation au Sénégal. parce que 767 milliards moom fu ñu ko investir ci lutte contre les inondations. franchement inondation waru fa amati. moo tax nañu bàyyi dañuy tontu naan ñu non li mu taw moo bari walla àdduna fa payta yooyu yëpp ay yax jaaxal la li mu taw moo bari justement c'est parce que le Sénégal avait pris l'option de faire face à ces forte pluies là que que ak seeni partenaire 767 milliards pour jële fi ay quantité taw yu bari dafa ñu ko woon pour ay quantité 1 millimètre 1 millimètre cube ah dafa ñu pour loolu également on dit que way euh, du Sénégal rek mooy taa mais dañu war am courage aussi wax ni dëkk yay taa ñu koy méngale Sénégal la fa taw ci quantité de pluie fukki xaajam. taw ci ñu réew ay catastrophe naturelle moo fa am. mais absolument Sénégal fii phénomène naturel moo fi am. tout à fait mm. te gis nga inondation bi la ci kenn ndax du fatalité feebar bu amul saafara am na saafara na am dafay laaj rek ce qu'on appelle une volonté politique sincère mais encourage boo xam ne dafay tey tegu serein boo xam ne day tegu ci xel. Pierre am na réew yu nu wër yoo xam ne ñu dàqoon taw téeméeri junni yoon boo fa demee tey doo fekk doo fekk doo fekk génération mais ñooñu dañoo am dañ ko def au cœur de la préoccupation gérer ko avec sincérité moo tax tey jii génération amatu fa xam nga tey jii. inondation boo ko doon tënk ci olof ci Sénégal da nga ma feneen de mais ci Sénégal moom da ngay jàpp rek mooy jafe-jafe bu doomu aadama am ngir dëkk ci jàmm moom ak ndoxum taw xam rek bu ñu man yow maanaam portable bi nga ko yoree ak feuille bi mënuñoo dëkkandoo ngay jéem ba moo pexe ñaar rek mën a am nga toxal portable mbaa nga toxal feuille depuis des années ñu ngi xool ñoom ñaar ñu dëkk ñu ngi jàppante chaque jour nit ki di sonn nañu toxal nit mbaa ñu toxal ndox. bu ñu cokalee ndox loolu mu ngi tudd assainissement. bu si gën a yomb. dama jàpp naa ne réew mi wun na ko c'est dama la courage euh, di courage rek parce que toxal ndox mooy assainissement réew mi mën na ko ne encore une gis nañu ay réew yoo xam ni la ñuy taw ëpp lu ñuy Sénégal gi taw. waaye avec une bonne politique d'assainissement bu tawee tey boo fa tey quelque temps doo fa gisati ndox. mais au delà de taw bi au delà taw bi wala mënuñu ko mhm. ñu jël option dans ce cas kon toxal nit. Mhm. loolu mu ngi tudd déguerpissement waaye nekk fii nit ñi bañuñu ko de waaye seen xel moo ki dalul. PDS sax xam nga ni 2005 dañuy toxal ay nit jëlee leen ci zone inondée yi ndax jàppoon ne seen kër yi dafa nekk ci yoonu ndox. Mm. ginnaaw ndox du bàyyi yoonam état bi noonu ko léegi na nit bàyyi yoonu ndox ñu jël ay nit toxal leen mais sax xam nga ni 2005 ba tey 2024 am na 386 familles yoo xam ni état du Sénégal moo toj seen i kër. te ba tey dëkkalu leen. kenn relogé wu leen waaye. kenn relogé wu leen parce que de def ay ñaxtu fii. mu nekk un drame ku góorgóorlu woon ba am këram donte sax amoon na inondation mboota maa ngi foon salte yaa ngi foon waaye ma nga doon am sutura moom njabootam dañuy këram gi dund inondation yi yow nga fekk ko foo toj këram joxaloo ko xaalis joxaloo ko kër maanaam da nga ko soppi euh, propriétaire daf ko tey daf ko tey locataire ñooñu nag di dund un calvaire indescriptible moo tax occasion la si sax ñu auditer plan Jaxaay. justement hmm. plan Jaxaay ak même plan plan plan décennal yooyu. c' est pour nous ñu lancer un appel aux autorités pour wax nañu bàyyi xel ci yooyu citoyen sénégalais à part entière. nga xam ne état moo leen plongé dans drame social boo xam ne actuellement presque ñu ngi touché le fond ndax it luyaas dafa metti mm. te bu ñu fàtte ni ñu dëkk ci koñu ndox yooyu lu ci ëpp ay góor lañu ay néegu doole lañu maanaam rey seen bopp takk seen ceinture ba am seen kër dëkk fa yow état nga toxal leen ñi def fii dafa am nekk yoonu ndox kon yow état yaa leen war a jox kër joxoo leen kër 2005 ba 2024 muy 19 ans après ku tegoon sa bopp xam ne métti na. Mm-hmm. kon na nguur gi daal bàyyi xel ci kaawu ñooñu maa ngi nuyu Tafando ak ñi ma àndal ñu bàyyi xel seen kaawu ci solution. li ma bëggoon na wax sax je pense que abordé nga ko mooy que dañuy ne dañu dem ci yoonu ndox dëgg fa. Euh, loolu est-ce que c'est de leur responsabilité parce que ñëwul ni ñoom ñoo ñëw rek xàll dëkk dañ leen autoriseel jox leen matuwaay yi xëy na pour a tabax foofu dëkk fa. waaw mm. sa réponse dafa nekkaale en même temps euh, sa question dafa nekkaale en même temps sama réponse mm-hmm. loolu dégg naa nag premier ministre Ousmane wax ko keroog mun na xarima loolu nag bett ma it wax dëgg yàlla. Mm. parce que daana ñëw ci banlieue bi ñuy ànd. wala mu ànd ak ñu mel ni xool inondation yi di masawu ñu coono. Mm-hmm. di leen gëmloo ni inondation yi incompétence nguur gi la wala aussi mauvaise volonté bu nguur gi wala soo ko si manque de souci wala insouciance su nguur gi nguur gi la kon bu tey bu ñëwee inondation am nga ñu ah nit ñëw dëkk ci yoonu ndox dafa indi naqar ndax boobu wax mosuñu koy dégg avant nga def ko pouvoir tey jàpp ma ni. mais dans le fond est que du dëgg tamit. waaw mais ci la laa jëm. Hmm. même su amee aussi mu ko mosuñu ko wax. Hmm. xam nga la moo jaaduwul maanaam li ñuy jaaxle li ñuy jaaxle Sénégal mooy changement de de de kii peuvent être liées aussi au changement de position mais dans tous les cas. Hmm. la vérité moom la vérité rek. nga nekk fii ak gauche ak nga nekk droite vérité égale vérité man li ma jàpp moom luy dëgg di ko wax soo nekk opposition di ko wax itam soo nekk pouvoir waaw ça c'est une parenthèse waaw léegi supposons ça wala que nit ñoo dëkk ci yoonu ndox ñaar rek mën a am salma mm-hmm. soit yow état yaa leen fa dëkkal. wala yow état yaa leen seetaan ñu dëkk fa. laxisme état. absolument mm-hmm. parce que publique jox la ay moyens de répression légitime jox la ay ay ay possibilités de dissuasion def nañ bu nit nekk ci loo xam ne kat lii mën naa jur musiba ëllëg war ngaa mën na fex ba dafa installé wu loolu mooy dëgg. Mhm. waaye bu fekkee par exemple nit ñi te juste loolu sax c'est faux parce que gis zone yi ba tey itam ña fa dëkk état moo leen fa dëkkal Kër Massar Parcelles Assainies ça s'appelle Parcelles Assainies mhm. ay structure état bi ñoo fa jaay ay kër ay nit dëkk fa muy SNHLM. nga ñëw sox yu mel ay angle mousse say bokk na ci kaa ki doon daqataa jëmercé léegi sax commencé wàññeeku ñooñee état moo leen tëxalu jël leen Dakar indi leen Guédiawaye kon dans tous les cas ña fa dëkk soit état moo dëkkal ala état moom moo sàggan wala état moo moo xamul woon ni fii yoonu ndox la kon dama jàpp ni ku nekk ci naxar te yow état soit yaa ko fa dëkkal mm-hmm. wala yaa ko seetaan ba mu dëkk fa damaa foog ni la war daal ci pexe la weer wut ay pexe yoo ko saafaral jàngoroom waaye non pas ko yaa fi dëkk Mhm. premier ministre boobu nga tudd Ousmane Sonko euh, président na bu yàggul conseil interministériel jagleel ko inondation yi euh, invité woon nañu la si. waaw damay jóor mais dem gi amul solo li am solo rek mooy ñoom ñu xam problème bi c'est quoi ak aussi yan solution lañ ci am te yaakaar naa war naa mën a am bu fekkee ni aussi tey ñu yore nguur gi muy Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Faye mais surtout Sonko nga xam ne yàgg nañoo dans la banlieue te wax dëgg yàlla li fi am ci inondation bari na ba mu créé parti muy 2014 ba 2024 li mu fa ñëw bari na. visité na fa ay zones yu bëree bëri xam na problème bi te am naa yaakaar ni aussi ci projet bi eh, ñu am ak aussi seen la solution yooyu ñu am ñu am war nañ ci prévoir nag benn offre programmatique pour mettre fin aux inondations parce que comme je l'ai dit tantôt inondation bu nu kenn gëmloo ni c'est une fatalité amul benn miracle bu ñu war a génne pour régler ko gis nañ encore une fois réew yi mais su école ñoo dàq taw ay Guinée yi dañuy taw taw yu jéggi dayoo. oui presque 9 mois sur 12 lay taw dafa dégg kaa yu mel nii. mais parce que ñoom dañoo jël seen i yitte def ko ci assainissement def ko également ci un aménagement boo xam ne dana tax ba nit ñi du ñu am yooyu jafe-jafe. permettre nga ma revenir ci une chose. Mm. léegi même bu dee sax dañu nit ñi danoo ñëw dëkk fu dëkkuwul. c'est dafa am benn problème boo xam ne suñ ko bëggee régler suñu bëggee anticiper il faut ñu régler ko léegi. muy lan accès aux bonnes terres mais bu dee par exemple dañu nit ñi dem dëkk zone yoo xam ni danañ wax ay zone non aedificandi maanaam zone yoo xam ni impropre à l'habitation nit ñi war ñu faa dëkk mais c'est parce que la question de fond mooy parce que suuf su baax si nit ñi dañ cee amul accès Sénégal amul ñetti façon suuf ñaar rek am suuf su baax si nga mën a dëkk ci jàmm ak salaam ak suuf su baaxul si mais bu dee suuf su baax si nga xam nga fa dëkk sans problème benn oligarchie c'est-à-dire un groupuscule de personnes. ñoo ko arcap ñoo euh, euh, ñoo ko accaparé wu. ba góorgóorlu amu ci accès. Mhm. mais góorgóorlu kañ li ko dese muy suuf su baaxul si rek. Mhm. ndax mu fanaan ci mbedd mënu ko ne fay las fay dem dëkk loolu c'est une bonne transition euh, Babacar Mbaye Ngaraf ngir waxtaan ci bande de filao ñi nga xam ni sa cheval de bataille la yow personnellement ak groupe yi ngay àndal coow li fan la tollu jamono ji foofu ca Géejawaay. waaw xanaa jaaxle rek parce que dafa mel ni mbir moom. dafa xëynul xëy rek taw parce que géejawaay moo bëgg déclassement bi partant du fait développement am tey jii dafa tax mu war a jige ci yàgg na sax d'ailleurs cité dortoir pour nag migrer vers une ville moderne avec tout ce que cela requiert comme infrastructure ndax ville moderne dafa war a am ay équipement ak infrastructure yoo xam mënu koo ñàkk comme ni ko fi lépp amee ñu gis ni rëcc ñi fi jaar ñëpp depuis temps wu bi gëj waaye di sanc si suñu papa yi suñu maam yi ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk am nga loo def mais tey ji bari na ay jumtukaay yoo xam ne gëj waaye soxla na ko te amu ndax lan assiette foncière la seule parti bi nga xam moo nañ faa màggee dafa extension mi ngi nekkoon dans la bande des filaos soo ko bëggee laal état bi ñu ne non fi mënoo ko laal ndax c'est un permis de reboisement et de restauration dafa te pendant ce même temps ñu gis état bi di dagg di jox ñu ko neex ñoo xam ne jàpp nañ sa na ki nañ droit waaye mënoo jox ko dem ba pare xañ ko géej waaye nga xam ne soxla na ko loolu moo taxoon ku ci mel ni bay di sëy ñu ko rendre hommage di ñaan la aussi fee mu nekk gën a ko fii mu jógee amoon idée ni mu il faut mu commencer dafay attribution ci biir ci ci ci zone boobu noonu bi mu commencé def waa eaux et forêts opposé wu ci daañu ko non fii mu def parce que dafa nekk dans la bande des filao après na ki la les maires Aliou Sall ak yeneen maires yi ñoom ñëpp ànd ak population Guédiawaye ñëpp honnêtement honnêtement chef de quartier imam bàjjenu gox association ñëpp rek ànd ba déclassement bi am te déclassement ñu xaaj ko ñetti part muy cent cinquante virgule cinquante huit hectares mooy la bande filao ñu ne benn parti bi muy trente cinq pour cent nañ ko def pour équipement équipement yi tey ji macha allah ña ngi ne fa gaañee beneen partie bi muy 21 virgule 02 pour cent nañ ko def ci wàllu voirie et divers moo permettre tey ñu jaar dafa ay canaux yu téere ndox mi waaye jaar dafa si ay tali beneen partie bi nag muy 43 bi 92 pour cent nañ ko def ci wàllu dëkk yi kon wàllu équipement yi bari na fa lool tey déclassement boobu moo permettre tey ñu mën fa am école élémentaire mën fa am CEM mën fa am lycée scientifique mën fa am centre de formation professionnelle au niveau métier mën fa am université islamique mën fa am maison de la jeunesse de la citoyenneté mën fa am un tribunal de grande instance Pikine Guédiawaye mën fa am maison des handicapés maison des femmes maison des personnes troisième âge mën fa am kër Serigne Touba mën fa am également cimetière musulman cimetière chrétien problème bi lan la alors non justement pour équipement yi amul problème hmm. mooy d'abord tey li ñu fa am ñun nii état bi jàppale ñu à travers ses ba ñu implanté loo yi ba nit ñi mën ko identifier ba nga xam tey bu Demba wala Pathé nekkee attributaire mu xam ne que sama parcelle fii la nekk ñu jox ko ay kayitam ba mu mun ci ba mu ba mën cee jouir li xam ne équipement la aussi ñu mën ko teg ci loxo yi maire yi ko demande woon ba lañ fa war a defar ñu defar ko fa wax naa la sànq ay yooyu wax naa la également ay salle de spectacle yu fa war a am ay maison de la culture sous-préfecture bu waxee naan sous-préfecture sanitaire ay RDG surtout parce que bu ñu fàtte ne en 2016 dafa amoon benn arrêté ministériel bu aaye woon mbër yi ñuy entraîné ci école yi. te père yow mi yàgg yàgg ñëw banlieue xam nga ni banlieue suñu jeunes yu baree bari te fa laa dëkk waaw fa nga dëkk ci ñett yi la ñuy nekk ci ñett bokk ñii ñu ngi ci njàng ñii ñu ngi ci sport bi ñii ñu ngi ci artisanat bi ñii ñu ngi ci culture bi or ci wàllu artisanat ak wàllu ak wàllu sport amoon nañ ci problème ndax suñu artisan yu ci baree bari fañ doon liggéey dañ leen faa jëlee parce que dañ jaar la ay tali parce que jaay sama problème tali ñenn ñi dans le cadre de la inondation dafa jaarale ay canaux kon ñu dégrippi leen amuñu woon fu ñu jëm conséquence première mooy lan beaucoup d' enfants dañu leen delluwaat ci mbedd mi xam nga tey jii ateliers yi que ce soit atelier mécanicien wala atelier. menuisier menuisier wala atelier euh, leneen booy nga xam ne jàng école seen jàng yàqu ñoom ñu leen di récupérer di leen jàngal métier kon seen atelier yi boo ko tëjee envoyé nga chomage mag ñi fa doon liggéey daan seen doole waaye aussi. tëj nga un centre de formation qui profité à des enfants fa nuy mujj mooy nekk enfant de la rue wala ñu verse dans le monde des charité on dit pas que baaxul waaye jàpp nañ ni lële mu gënoon ci wàllu liggéey beneen côté bi ñu gis nii mbër yi amatuñ fi ñu entraîné sunu yenn booy yi doon jàng métier yenn ateliers yi ateliers tëj nañ ko am na ci ay booy yoo xam dañuy am xarañte lool ci wàllu football di toj match yi waaye lu ci ëpp nawetaan la ñuy yem dootuñu demati feneen. ñu gis boobu jamono ne am na benn sport bu ñu tuddee woon beach soccer dafa la tudd. Mhm. mooy sport bi ñuy def ci wàllu. football de plage. waaw mooy mooy football de plage. Mhm. ki commencé à payer ñu gis suñu boy yoo xam ne tey dañuy aaj ci football te dañu am chance bu dem euh, jaay seen talent feneen war nañ leen mën a récupérer ñu tenté seen chance ci football boobu nga xam foofu de la plage d'autant plus que am nañ place bu am solo Guédiawaye moo tax tey boo ñëw ci beneen partie bi nga xam moo nekk diggante tali bi ak géej gi dafa ëpp. dafa nekk ay aire de jeu yii pour ay petit la entraînement yii football de plage bi yii ay grand camp ak espace yoo xam ni jogging la ñu mel ni man mën nañu fa defa tàggat seen yaram donc côté boobu loolu moo fa ëpp waaye aussi may leeral ni li déclassé cent cinquante huit virgule cent cinquante virgule cinquante huit hectares en même temps dafa classé parce que on considérait que les FELAO ont un rôle à jouer au plan environnemental écologique loolu moo tax on avait veillé à ce dans l'autre partie ñu régénérer fa la bande des filaos on ne le dit pas souvent mais c'est ça la vérité mm. le déclassement dafa classer en même temps benn partie bi nga xamoon nekk diggante tali bi ak géej gi boo fa demee tey di nga fekk ñuy jëmbat ay filao yoo xam ne macha allah commencé nañoo meññ moo tax ñuy lancer un appel à la jeunesse de Guédiawaye également aux pour que la régénération de la bande des filaos soit une réalité am na ñu ci sóobu ñu leen félicité waaye ñëpp gën cee jàpp état bi également accompagné loolu. léegi pour ko wax suuf suuf si ñu càkkat jox ko ay nit ñoo xam ne peut être amuñu si seen droit seen sol amuñu si woon sax droit. loolu mooy problème c'est-à-dire équipement yi amuñu problème. Mhm. mais loolu wax sànq ni problème fan la mooy wàllu 43 bi 90 pour cent yi jox. habitants ah, foofu laa doon xaar. mais là aussi nañu am courage wax ni waa Guédiawaye am nañ ci yow am nga si. waaw ci laa bokk xam dama am si. dañoo nekk conseil municipal les conseils municipaux en ont bénéficié c'est l'occasion de apporter un éclairage parce que damay dégg gars yi naan conseil dañoo toog séddoo ko demewul noonu de. conseil le seul critère bi ñu xam mooy lan la suuf si ay sénégalais lañ koy jox en priorité parmi les sénégalais waa Guédiawaye encore en priorité. waa Guédiawaye selon selon yan critère lañ ko joxee. non justement maanaam tey jii suuf ko bëgg état moo koy joxe. Mhm. da ngay bind demande ñaan état état étudier ko bu dee li nga ñaan kenn moomu ko moom état wala ay démembrement prévoir ñu fa dara la koy mën a jox. conseil municipal ce qu'ils ont fait dañoo organiser wu bu neexoon tey Salma mii wala bu neex rajo bi nga bind daal di ñaan l' état à travers son service domaine nga ñaan fa suuf c' est hmm. boo ko ñaanee boo amul branlon. waaw xëy na loolu ma la c'est ça la règle. waaw loolu mooy règle bi entre la règle ak les faits. yow boo ñaanee ñu étudier ko. Mm-hmm. suñ la mënee jox dañ lay jox. Guédiawaye ce qui s'est passé mooy les conseils municipaux se sont organisés daal di ñaan état bi suuf bu leen neexoon ñu def ko à titre individuel mais dañoo regroupé wu comme nee enseignants regroupé wu am coopérative ñaan ñaan suuf ñu may leen. mais presse bi am nañu fa am na fu ñaan may xam nga gëj wala xam nga fan. am na ñoo xam ne. ah bëgg na jëm dëkkuñu Géejawaay te dégg nañ leen ñu ne am nañ ci comment se fait-il. waaw non au delà des conseils municipaux. Hmm. am nañu dëkk Géejawaay am ci. waaye aussi am ñu dëkkul Géejawaay am ci laa ne pas le problème tax. Hmm. Géejawaay mi ngi bokk ci am réew mu tudd Sénégal c' est une nation nation le territoire est indivisible tey am na ku dëkk Géejawaay am kër Touba. nit mën naa dëkk géejawaay am kër suuf am suuf Saint-Louis nit mën naa dëkk géejawaay am suuf Thiès am na ñu ma xam man sama. Ah, sër ci amin la quoi ci loolu ñeneen am fa parce que encore moytu loolu dafay indi balemètre bi cest à que régionalisme bu ñu nee léegi suufu Kaolack waa Kaolack kese ñu ko moom ce serait dangereux wala suufal ndar waa ndar rek ñoo ko moom ce serait extrêmement dangereux sénégalais yi ku ci ne am nga droit am feneen na ko demande mu jaar ci yoon par contre la mooy indi scandale bi mooy da ngay gis benn nit yoo xam ni xëy na am na influence wala borom barke la ñu jox ko un hectare deux hectares quatre hectares alors que kat boo jëlee par un hectare rek nga xam ne c'est à peu près trente cinq voire quarante parcelles soo ko joxee benn nit xañ nga quarante quatre autres personnes. te ki nga ko jox ëppalewul Sénégal yi lenn lu dul xëy na rek jigéen nguur wala am doole par exemple boo ñëwee tey yi nga ne salmakat yow am 2 hectares yi nga boole ko war a nekk 70 parcelles kon à salma kese am na 70 parcelles yoo xam ni moo na profité Edouard Demba Pathé Moussa 69 autres personnes loolu tey ji moom scandale bi moo tey ñun suñu combattant yi ñaar la bi ci njëkk mooy ñu réhabiliter la ville de Guédiawaye boo xam ne moom mooy le maître d'ouvrage di PUD. pour je le parce que ville de Guédiawaye dañoo xëy rek depuis l'avènement d'Ahmed Aïdara très honnêtement dañoo xëy rek gars yi daanaka ñu semp ñu totalement ci mise en œuvre bu PUD bi yëguñu tiinuñu te nag mun te nekk parce que Guédiawaye la ville moom ma porté woon le projet de concert avec les maires darondissement kon il faut ñu indiwaat la ville de Guédiawaye réhabilité ko. daal di ko joxaat position bi amoon dans la mise en œuvre du PID waaye également ñu jàppale ba li fa génn ci ay loo ñoo xam attribution à titre individuel la ñu jox nit ñi seen i këyit wala leen seen i terrain ba ñu mën ko tabax beneen bi it mooy la fa ëpp nekk ay hectares espace yu ngand yi ay 1 hectare de hectares 500 4 hectares ñu jox benn doomu aadama ñu dindi ko. delloo ko géejawaay géejawaay dina xool nu mu ko séddalee ndax doom yi mën cee gën a gis seen bopp. décision bi président de la république jël nag ne nañ arrêté liggéey yi euh, ci zone yi nga xam ne yëpp coow yi dafa bëri ci wàllum suuf amul lu lu si leer yow ban position nga si am. waa loolu day président wax ko ay nit ñoo ko wax te ñoom jum nañu sax d'ailleurs parce que dafa mel dafa am benn extrapolation que rien ne suffit parce que ñaar mesure lañ fi dégg administration bind la benn bi premier ko jël par arrêté muy 006 632 10 13 mai 2024. beneen bi le directeur général des impôts et domaines moo ko jël adressé ko à ses services mais ñaar yëpp tey jur na loraange. bu ñu ko jëlee kay am nañu ndigalu président. waaw hmm. ah, c'est possible en tout cas non man man man li may liir. may liir mooy ki wax. xam nga président buy jël day jël décret mu bind ñëpp xam nga. waaw ah, donc nañ ne état moo ko jël. waaw ah, état d' accord dans ko jël wàcc ñaar ñi la ko jaarale. Hmm. le premier ministre dafa ni carrément mi ngi demandé ñu suspendre toutes les tous les travaux de construction sur le domaine public maritime. ma bëgg a fàttali domaine public maritime maanaam périmètre la boo xam ne c'est limité dans l'espace kon ñi nga xam ni dañuy liggéey te nekkul ci domaine public maritime bi dara mënut a justifier wul nga ñëw arrêté seen ay liggéey xam nga tey jii bu ñu nee woor par exemple woor en tout cas ci ñun ngi commencé salaatu xayrun mina nawm jeex timis après yow nga ñëw fekk ay nit di di di di di reer ay nga leen non bàyyi seen reer bi parce que a woor da nga war a woor. mais bu fekkee liggéey bi jaarul yoon. non ni ñu amee suuf seek yooyu yëpp jaarul yoon. dañ ko war a bàyyi noonu. continué waaw dama bëgg a fàttali égal am lu ñuy tuddee de construire autorisation de soo koy am da nga njëkk indi kayit bu ñoo wax titre de propriété état moo koy joxe à travers ses services. soo ko joxee ba pare ba am titre de propriété nga dem soo ko demander autorisation de construire mu jaar service yëpp urbanisme état la domaine état la cadastre état la mairie ma demande ma état la. suñu paree xam nga ñu koy jox le sous-préfet bi nekk représentant état ca gox ba moo koy approuvé kon dans tous les cas foofu lu jaar yi mun fa chaîne bi yëpp état la. loolu faytu état la. faytu non la faa mën na fa am lu lewul lu jaaru yoon parce que état moo la ko jox. mais est ce que du état bi ni mu la ko joxee loolu la ñuy xool circuit bi mu jaar yëpp est ce que yoon la est ce que respecté nañ procédure. waaw su boobaa nag état moom mooy xoolaat boppam parce que li ma jaaxale mooy état. dafa am ay nit yu koy incarné waaye état moom il est toujours là il est périn boo jëlee tey jii la euh, commission bu jox comité ad hoc service fa nekk mu ñu doon joxe suuf si xam nga aussi on ne peut juge et partie ça c' est un autre débat tey jii li xam ne xew na ba xew mooy foofu noonu képp ku fa am këyit di liggéey rek état moo la jox këyit bi ginnaaw bu mu saytoo ni jaar nga ci tout la toutes les euh, tous les maillons de la chaîne ont été respectés mu jox la sa kon soo bàyyee yow fi la wax yem muy le domaine public maritime te là je veux être catégorique permettez-le-moi muy ma muy Guédiawaye Malibu. commencé Guédiawaye ba ko rek rond-point Gadaye jóge rond-point Gadaye dem ba Malika muy Tivaouane Peulh muy muy muy euh, Kër Massar fi mu wax la bande de Malika. amu ci fenn foo xam ne fi may wax ak yow nii instant bi ma wax yow xam nag ci kanam. waaye ba fay jógee amu fenn foo xam ne am nga construction. n'est-ce ngeen ma am déet. Mm-hmm. ba fi ñuy wax domaine public maritime. kenn tabaxu fa. kenn tabaxu fa léegi nag dama jàpp ne xëy na li ñu gis kenn ñàkk fa tabax moo tax gaa am liggéey bu ñu bëgg a def dem foo xam ña nga fay tabax te bokk ci DPM bi ñu ñëw fa di aaye nit ñi liggéey te loolu dafa jur scandale euh, Salma. xamul nga tax maanaam tey sitoyen sénégalais bi xam ne dafa bëgg lu leer ba jaar ci yoon dem wut këyitu këram ci yoon di liggéey engagé entrepreneur nga ñëw ci raison yoo xam ne xëy na moom xam ko nga ne ko taxawal. aaye sa taxawal sa liggéey yaa ngi bagage bi jënd yaa ngi koy exposé surtout côté yooyu xam nga ne ak ni mu meloon liggéey géej gi yaa ngi yàq ay bagage tam l' bi mu fay jox ko avance bu ñu jàpp ñëpp fa ñu liggéey fa lañ dëkk am nañu jóge Tuubaa ñu jóge fa ne dafa liggéey si ak seen i lu seen équipe luyee fa kër mbaa ñu luyee fa nekk dafa fay lekk nga xëy liggéeyu yu tax waxoo kañ waxoo leen kañ lay jeex attention c' est le DPM le prise moo wax deux mois. waaw deux mois mais arrêt travaux yi kenn waxoo jeex kooku. yaa ngi ko indi problème quand même nga géej gi ñëpp ko bokk est que dañoo war a bàyyi rek benn ay privilégié ñu fay tabax di xañ di xañ yenn privilégié ñeneen ñi foofu la ñu bëgg a dugal nag hmm. moo tax man la sànq domaine public maritime bu Guédiawaye amu fa fenn foo xam ne am na construction fa mooy corniche ñu ngi si bi fii foofu waaye foofu amul géej loolu amul Guédiawaye kon kay ba mesure yamale foofu noonu mais mënuñu concerné ñun mais Pierre mënuñu parce que loo xam ne xëy na beneen télé la am yéen seen yoon nekku ci ñoo yéen yéen yéen bu leen liggéey. ah mais la loi est est de portée générale. déedéet pardon de loi la loi dafa nii dama ñu la. waaw moom wax xaaral wax rek légiférer la ñu légiférer de manière générale. ah ah déedéet pas pas au cas par cas. déedéet loi bi dafa nii. Hmm. du sax loi arrêté la dafa nii sur dafa nii dégguma sànq ba léegi. dégg naa lu dégg naa lu baax de arrêté liggéey yi ci domaine public maritime. Hmm. mais domaine public maritime bu ko jaay kenn liggéey fan la ci suma daa ma liggéey fan la fan la fan la gars yi di aaye. foo xam ne boo mi ngeen ko tey ñu ne léegi nañu aaye képp ku taal làmp géejawaay. Ah, xam nga pour dissuader. de non non non c'est pas parce que kenn tabaxu fa actuellement nii rek duñ fa tabax suba. ba <laughs> pare comprendre lu ma. le temps que ñuy càmbar xool. di comprendre lu tey de. Hmm. comprendre nañ la bu baax de. bu ñu xam nga léegi ma jox benn exemple. Hmm. wala léegi bu ñu dafa am euh, lu xew euh, Padois léegi aada Padois nañ fa aaye liggéey yëpp yow da ngay dem euh, fële Medina ay ay ay fay liggéey. parce que dafa yaa ngi tooñ. ah déedéet. pour bañ la am Patte xew Medina. Ah, déedéet nag. Hmm, hmm. xam nga soo ko lay wax da nga naan aay nañu liggéey Patte d'Oie ak Medina. wala aay nañu liggéey. de Patte d'Oie ak nañu liggéey bu mel ni faneen ak faneen. Eh pour mu leer mais loolu la ñu waxoon nag souvent. Hmm. dañu ni suspension de travaux de construction sur le domaine public maritime. tey bu ñu ciblé woon cité zone yi ñu war a ciblé après waa Guédiawaye suba dinañ ba sànq déggoo ca ma nañu ramasse ñëpp ñu amul ñu am kayit bu ñu tëjee dañuy raaf dañu am carte d'identité yëpp mhm. dafa leer dañ parce que aussi mbir dafay am objet yow tey journal da ngay def sa feuille ni lii sama chapeau sa chapeau boobu mhm. ni lii mooy point météo journal mais lu ñu bokk koñ bokk si mhm. <laughs> voilà bu ñu nee dañuy aaye constitution ci domaine public maritime bi ça concerne excusez-moi la répétition le domaine public maritime. waaw. wax xayti kay lu fa nekkul nekk fa bu ñu nee hmm. salma kay dëkk bi na dañuy aaye euh, ñu gàtt ba pare pata ñuul salma yi bokk ci. Hmm. mais daa salma yaa tooñuloo ko. ah déet salma gàttul pataawul ñuulul. en tout cas booy légiférer daal da ngay légiférer hmm. de manière soit ñu ne nañ jàpp jigéen ñëpp bu ñu salma kenn du dara. waaye nag foofu dañ faa dégg jafe-jafe yi fu am ci wàllum suuf xëy na loolu moo tax. ñu jugé nécessaire waaw non non mesure boobu jël nañ ko ba fa amul liggéey ñi ko jël mooy le directeur général des impôts et domaines. demander à ses services nañu à ses services nañu surseoir ko en parce que am na ay contentieux ak yoo xam ne en cours la ak aussi en perspective am na de man wax yàlla ñaari problème yoo xam ne naa ko fa benn bi mooy le lotissement de Béyricey du ñu naa ko sànq ndax Béyricey dafa defoon ñu attribuer ay parcelles. waaye seeni borom mënuñu ko woon jariñoo parce que service eaux et forêts bu ñu doon opposé wu daa di wax ni fii bande classée la il faut ngeen mu am déclassement ba pare ñu toppatoo déclassement bi entre temps bëri see gaañu déclassement am le président de la République insisté pour que ci PUD bi nañ jël en contre comme existant lotissement de PUDC mu 3,5 hectares ñu xëy rek gis ni am na ay gros bonheur yu ko séddoo. xañ ko ña nga xam ñoom ñu ko njëkkoon a jox loolu scandale la. beneen bi ci topp aussi mooy boo ñëwee fii maraîchers yi nekk tey maraîchers yi dañ leen waroon a jox ay terrain en compensation parce que ñoo fa nekkoon di fa bay xëy na it joxuñu joxe nañ lu bëree bari waaye am na ay benn benn yu des te benn benn yu aussi dañu wala dañu war remettre dans le droit jox leen ni jox ñeneen ñi beneen bi mooy. benn scandale day moo tax mu am na un dossier qui est à l'OFNAC mhm. qui n'a pas attendu ay nit yoo xam ne dañu amoon ay ay terre ñu jox leen seen i këyit yoo xam ne directeur domaine bi moo leen ko jox mu bind ci dafa jaar CCOD CCOD service yi fa nekk yëpp dañ ko approuvé jox leen notification jël liste ak PV CCOD yóbbu ko domaine ki fi nekk ko receveur muy Daouda Diallo jël yëpp teg ko ne le yu jël terrain bi attribué ko ñeneen scandale moo tax ñu dem kon yooyu d'accord nañ am nay litige hmm. yooyu cas nañ ko réglé mais yàqul dara ak cas yi nga xam ne tey jii dañoo nekk en règle ma jox la benn exemple hmm. bu ñu tey ji xëy na dañoo dégg ni kat am na ay nit yu amul seen permis baaxul dañu ni xool dafa tax ñu ne léegi oto yëpp nga dawlati ba kër ñu jàpp ñooñu mais su suis désolé ñu oto yi dañu ko daw seen daw sufa yi dawal seen dawal ñu continuer le contrôle ba kër yu jàpp ñu ñu ñu ñu ci yoon xam nga xam nga xaaral Edouard xam nga dañu bëgg relation ak débat bi rek. te duñ si foofu duñ fa d' accord. non dugg ma foofu noo xam nga <laughs> raf. ah mais waa léegi Pierre. Hmm. waaw bu ñu nee par exemple léegi université ku amul bac war a fa war a faa dem waaw mais kooku c' est clair. Hmm. parce que aussi note ak arrêté ak dëkk dafay leer dafa am lu muy day visé. waaw bu ñu nee par exemple ñi nga xam ne kat dañoo dégg ne am nañ ñu amul permis dawal oto ngay policiers ñooy contrôlé. waaye si tax ñu léegi oto yëpp taxaw leen bu kenn tawati ba kër ñu jàpp hmm, ñoo ñu jàpp ñu càmbar waaw loolu mën a am. mais oui bien sûr. non bu ko laajee <laughs> bu ko laajee pourquoi pas mais bon léegi euh, le foncier de manière générale pour ñu mën a jeexal ak décision yi ci état bi jël euh, Sénégal dañuy wax chaque fois du bombe foncière lañ lañ nekk nii. Mhm. est-ce que yow loolu nga gis walla am nga yaakaar ni tey étant donné que ñi jiite réew mi ñoo xam ne ci suuf lañ doon liggéeyee xam nañu véritablement les enjeux ils sauront prendre les dispositions les mesures idoines pour éviter ñu problème ci wàllum suuf. waaw mesures yi nga xam ni jël nañ ko te mu jugee direction des impôts domaines jaru ko woon pour la bonne et simple raison on nous a des contrôles des des audits sans une cessation du travail yàgg nañ ko def lu ñuy wax gars yi bu leen arrêté leen liggéey arrêté leen liggéey bi sax wax nañu ni dafa ay contentieux damaa jàpp ni l'État est suffisamment outillé pour contrôler lu muy contrôler vérifier li muy daan ñi muy daan waaye ñi ne ci yoon boo bañ leen a lor parce que yaa ngi imaginer tey jii bu la directeur général de la police xëy na daal ni dégg nañ ni dafa am euh, lu xew fii Sacré-Cœur wala pour quelconque raison mu ne léegi police bi nekk Sacré-Cœur police bi nekk Guédiawaye police bi nekk Mbour police bi nekk Thiès bu leen defati enquête bu leen def rafle bu leen def circulation bu leen délivrer benn papier yaa ngi indi problème waaye tey le directeur de santé xëy daal ni pour je ne sais pas ñu ne non léegi hôpital Dantec hôpital principal hôpital Roi bu Réew Guédiawaye hôpital bu Thiès opital bu Touba hôpital bu Mbacké hôpital bu Ndar maternité yi bu leen bu leen accueillir les femmes enceintes yi bu leen faj xale yi feebar. Euh, laboratoire bu def bul bul bul def. exemple bi ngay joxe bokkul ak foncier mais quelle est la différence. exemple yi ngay joxe bokkul ce que par là mooy. Hmm. dafa am ñoo xam ne ils sont en règle mën ngaa def sa liggéey te doo leen parce aussi ab nguur état dafa war a moytu di tooñ ñu ñëpp dañu soxla respecté état waaye ne respect réciproque te premier marque si de respect mooy lan exigence mooy lan nga fexe ba bañ a tooñ ndax boo tooñee rek dootoo mën a mérite le respect de tes concitoyens de tes concitoyens donc encore une fois mesures yi ñi ngi xaar waaye da jàpp nañ jàpp nañ daal gars yi gaaw ci ci li ñuy def ba mën a permettre la reprise des travaux ñi nga xam ne nekk nañ. mais état bu demee ba rendre compte que ni même ses propres services am na ay failles yu ñu def ci ci autorisation et tout ça mais dara nekkul si état bi di delluwaat ginnaaw. ci loolu amuñu problème jël les dispositions. mais justement moo tax ñu moo tax ñuy lancer un appel. Mhm. parce que xam nga mesure rek wax dañu ko jël te dafa am conséquences yi. mais bu naree jàng gis ah man que lii maa ngi plongé dans un drame social ñoo xam seen yoon nekku ci parce que xam nga Pierre. Mhm. c'est parce que xëy na bàyyi woo xel borom kër gi jël matériel di liggéey te benn faute. Mhm. ñu ne ko taxawal di yàq matériel di yàqu ki jël entrepreneur bi ñëw di liggéey moom maçon bi ay plombier électricien euh, carreleur xëy na sax charretier bi nga xam mooy dem di tibb di di jël ba di ko indi ñoo ñëpp di ay jeunes yuy liggéey daan seen doole nga xëy ñu dem toog dafa ne kañ lay jeex il y problème moo tax mesure aussi boo koy jël da koy encadré da nga koy limité dans le temps dans l' espace dans l' espace le temps aussi nga ne fii lay jaf mu ngi xëy rek kenn lay jaf non deux mois c' est l' arrêté du mais hmm. les mesures du DG hmm. ne sont pas limitées dans le temps beneen bi ci topp aussi mooy ñu ñëpp war nañ d' accord ni suuf si c' j' en profite pour faire une précision ah je amu amuñu nekkuñu ci benn logique attaquer le DG des Impôts et Domaines wallaay xaw ma ko sax waaye li may dégg ci tax ma jàpp ne ku baax la ndax dégg naa ne ku jub la fonk liggéeyam diggaay ku fonk diineem la te ñaar yu ba dajee ci nit rek war ngaa mën a am ci moom njot gu rafet waaye dafa fekk ni mesure bi jàpp naa sax ne dañ ko ko jëlloo waaye moom dina baax comme moom moo ko signé ñu ñaan ko mu wax ñi ko jëlloo nañu xalaat xaat parce que mi ngi lor ay nit <laughs> merci beaucoup jërëjëf Babacar Mbaye Ngaraf euh, président synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue nga nekk itam porte-parole euh, taxaw temb aar sa euh, gox conseil municipal chargé du domaine urbanisme et habitat à la ville de Dakar ñu ngi lay gërëm bu baax. ngi lay gërëm bu baax a baax Adja Sama di gërëm aussi jërëjëf merci.